ñu ñëw ci nettalib juróom-ñeenteel bi Serigne Moussa Alima ndeyam bi mu mujjee ñëw ci Serigne Touba xaada lawo law maxtaar lawo daa dindi kaalaam jox ko radiallahu anhuma wér na loolu yi bokk na ci ay càngaayam ba mu faatoo wallahu alam